mbokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal suñu diggante ak moom te dox ci suñuy diggante ak sunuy moroomi jaam tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tënk rek ci ñaari tomb waaye boo leen boolee benn lay doon mu di kañ la nit di yittewoo ne jàkk àllaaxira te fekk mi ngi dund dara jotu ko ak kañ la nit di yittewoo àdduna te fekk ma nga àllaaxira mbokk yi ñu xam ne yi fiy jaar di jàll ak yi ñuy séentu te xam kañ la kañ la ak yi ñu xamagut loolu boo ko boolee mooy àdduna àdduna nag buñ ko seetee ci li jotu weesu day mel ne dax dax ku ko xamul mën naa xam beurre wala mu xam fromage lu mu rafet rafet lu mu rëy rëy la ko ëmb lu mu rafet rafet boo ko tegee ci naaj wi bu ci kanamee boo dellusee dootoo xàmmee fan nu mu meloon nag ku ko gisoon doo xam nu mu mel xanaa nga fekk fa këyit boo ko ëmboon noonu la àdduna mel ginnaaw lépp day jeex ñépp di fi jóge yàlla rek moo fiy des ku bëgg aw turam yàgg fi ñu di ko waxtaane di ko fàttaliku say soppe di bëgg ay noonam seeni xol di gën a naqari na fab mbiram yépp wér ko ci suñu boroom lu muy def rek mu seereel ko yàlla te bàyyee ko ak mbiram te tënku nag ci ay atteem ndax àdduna gannaaw bu buñ ko niroolee akub dax wala beurre wala fromage boo teg ci naaj wi ñii tukki mën nañ koo xam ci liñ dugg muy tukki fa muy taxaw te fekk ak gut fañ jëm diir bañ fay def dara jarut di fa ñaaw diir bañ fay def mu gàtt ñu ne naan leen café wala añ leen wala danañ fi taxaw juróomi minute wala fukki minute ak juróom diggante boobu jarut ñaaw bu mu ko taxa wàcc ca dëkk ba te ak gutoon fa mu jëm ndax kat fa muy jaar lu mu rafet rafet ak lu mu leer leer wëri wëri rek mujj nekk mujj jëm këram rek ak nu kër ga mën a mel moo tax ñu jëkk ñi daana ñaan suñu boroom subhanahu wa taala naa ko yaari kër kat moo am te faw nit ki tabax ci benn sanc ko muy kërub àdduna ak kërub àllaaxira daana ñaan yàlla yàlla neen yàlla dimbale ba lañ am lépp ñu tabax ko seen kërub àllaaxira yàlla nañu ci yàlla boole kon àdduna jullit bi daf fiy jël rek lim soxla tam amal ko njariñ lu tàmbalee fii jëm ëllëg la ci des mu bàyyee ko ñeneen ña nga xam ne ñoom ñoo ko soxla waaye bu mu fab àdduna sépp def ko jox àdduna sépp wàllam maanaam jëmam jëpp ak jëfam ak waxam lépp mu jox ko àdduna àdduna moom ko wala moom ci boppam mu bëgg a fab àdduna def ko ci ab pot yag-yagal ko naan xam ne àllaaxira daal mooy kërëb dëgg ka nit nag dana nekk fii ci àdduna léeg-léeg xelam na yar ca àllaaxira te fekk mi ngi dund loolu bari na fu muy am waaye fi ci gën a fës suñ jamono mooy nit ki tooñ la tooñ la ba noppi tooñ ñar bi la néewalaat la doole yay la su boobaa jërta laaj kooku am xelam àllaaxar rek lay dem ndax doyal na ci àdduna waaye léeg-léeg it nit wut wut wut mu tëkku te moroome bi di am mu ne lu tax muy wutanoog ñoom te amul soo déggee ñoo nañ ko bàyyi yàlla rek wala yàlla yàlla yàlla am na ñoo xam sax bu ñu ko waxee rek seen xel àllaaxira la nekk bëggatuñ ci àdduna dara loolu nag lu woyof a woyof la bu ñu ko dendalee ak ña nekk ëllëg àllaaxira te seenum xel di dem àddina suñ demee ci alxuraan dañ ci fekk juróom-ñaari barab yoo xam ne benn bu ci nekk nit a nga fay rëccu lu teewoon mu gën a yàgg àdduna ndax lam gis xamul lu mu bu fekkee fi ma jëkk a wax la nit ki tooñ la fekk la ci sab liggéey tooñ la tooñ ñar bi la yóbbu la fa ñuy àttee yay la ñaawal la dolli ca ku ne xam na ne kooku moom xelam alaaxira dong lay nekk waaye nag yàgg yàggatut yàlla boole ko ak ka ko tooñoon tooñ ñar bi ko àtte ko dajale leen ci bis boo xam ne la yàlla di leen peeseele seeni jëf kenn ku ci nekk moom du bàyyi dara doonte lu toll ni fepp sal guuf la kenn ku ne la nga amoon la lay jox su fekkee lu baax la yàlla dala koy fulal ni muy fule jiwu ci nawet bi ni muy fule aw jiwu ci nawet bi su dee leneen mu delloo ko kooka suñu borom mi ngi wax nag foofee nit dana fa ne teg am xelam dem adduna te fekk ma nga àllaaxira la muy xalaat mooy ak neexoon yàlla yamale tollale ko suuf si ab àtte suuf si nga xam yàlla topp ko dara moom lam la ma doon nekk ma nga ca law tusawwa bihi bihimul ard fab suuf atte ko atte suuf rek jëri ko mu jiyaax léeg-léeg nit na jàkk ay mbiram àllaaxira xelam na yar adduna mu ne ak neexoon yàlla boole ko suuf yi ab àtte benn yoon jëri leen ñu jeex ndax xam ne neftu jag su ko defee jullit boo xam ne nag léeg la léeg-léeg xelam na yar àllaaxira na sant yàlla xam ne ab xolam a ngi dund waaye koo xam ne dane ab jullit la te soo ko bëggee wax waxe àllaaxira mu ne moom attewut ci loolu yoonam nekku ci àllaaxira tey la tey la tey la tey la tey tey la rek suba suba la ñooñu nag mën nañu doon ab kuréel àndandoo bari lool waaye saa bu jëkk di ñëwee da nga xam ne ànduñu woon ngir yàlla loolu mooy rëccu gay am ëllëg nit ki xelam na yar ci àdduna te fekk ma nga àllaaxira ñëw mënta te amaat yàlla nañ ci yàlla musal ñi nga xam ne dañoo takkatoo bokk lenn lu ñuy xeex kenn ku nekk di wane ci kaw ne jaral na ko ba kanam alxuraan àtte woon na seen mbir bu yàgg alxuraan nee na ñooñu nga xam ne dañoo doon takk benn takk bokk lu ñuy xeex ku bokkut ak ñoom looy def ñu singli la di leen xool tuuti rek seen ànd ba du dëgg ñiy ànd tamit dëgg mooy ñi nga xam ne léeg-léeg ñu néewul leen doole seenum xel na yar àllaaxira ñu bàyyi ak yàlla suñ demee ci alxuraan danañ ci fekk ak a neexoon ak a neexoon ñu ne gàññ bi ma jëkk a wax nga xam ne dañuy ànd doon benn takk ne dañuy xeex mbir te bu loxo demee gémmiñ ñenn ñu rocciku bàyyi fa ñu ko des su xéewal amee ñu bëgg koo bokk nañ déglu alxuraan waxoon ak ñoom bu yàgg jaaxalut ñuy jàng alxuraan wa inna minkum laman la yubatti anna fa in asaabatkum musibatun qaala qad ancama allahu alaya id lam akun maahum shahida wala in asaabakum fadlu min allahi la yaqulanna ka an lam yakun baynakum wa baynahu mawaddatun yaa laytani kuntu maahum fa afuuza fawzan azima am na ñoo xam ne tey jii boo leen naan alquran nee nañu du mooyu ne alxor atte wut ci réew mi wax nañ lu rëy daa am ñu ñu àndal rek waxewuñ seen làmmiñu bopp moo tax yi ñuy wax yépp di ko yàq lislaam ak alxuraan ak ñooñ diine buñ doon waxe seen làmmiñu bopp du naqari mu naqari kan ndax yéen a bokk lu ngeen di wax waaye gannaaw waxewuñ seen làmmiñu bopp moom da ngay jàpp ne dañoo déggul làkk rek dañoo déggul li ngeen di wax rek alxuraan am na ci ñoom ñoo xam ne suñ ne leen yàlla nee na moo santaane ñu ne yàcc yàccaaral sa gannaaw ne dem leen jiitu ma maa ngi ñëw te ñoo ñëw noonu dem leen maa ngi ñëw bu ñu amee ndam ñu ne ñu ñëpp ñoo ko bokk waaye nag su ñooñu dajee ak gàllankoor ñu rocc ko taxaw fële ne yàlla baax na ba ma ci bokkutoon ñoom rek ñoo doon dem boobu mooy bu njëkk bi buñ ne la yàlla nee na yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam nañ dem barab sàngam wuti fa nàngam nañ jàpp ci alquran ñu ne sii dem leen maa ngi ñëw ñooñu lu leen ci mën a dal ñu rocc ko taxaw fële ne yàlla baax na ba ma ci bokkut man waaye nag ñooñu suñ demee tase xéwal yi na gàññe ëllëg yowmal xiyaama ñii taxawoon di xool dañ naan yaa laytanii kuntu maahum ak neexoon tey jii ma bokk ca ñoom fa afuuza fawzan azima ñooñu ña nga àllaaxira waaye seenum xel dana yar ci àdduna ñu bëgg a dabaatal te fekk weesu na nañ wàññiku ginnaaw ñu ngi dund sa weesoogul waaye am na feneen fi muy wax ci alquran koo xam ne soo ko masaan wax ne yàlla nee na wala yonent bi nee na su dëppoo wut ak bakkanam rek mu fab àdduna teg fab ak pal teg calculer wàññi mbaa su ko waxee wala mu def ci mbaa du ko xa du ko xañ lii mu yore pal googu nag mën naa am pal gu nit ñi pal gu nit ñi fal mën naa am pal goo xam ne it yàllaa ko fal waaye nag xamuñu nu nu ko ko yàlla fale dañoo xëy rek fekk ko fa topp ko am ñoo xam ne it nit ñi leen ko jox kenn ku ci ne mën naa dem a dem ci ñoom ñooñu ba yàgg lu mu fa fekkoon ñu tëral ko rek mu tegg ko teg na le bëgg teg yi fi boppam yàlla nee na su ëllëgee ba gis ñi àndoon ak sallallahu alayhi wa sallam ak alquran ku ne xam ne yaa layta jami wax yaa laytani ittaxadtu maa rasuli sabila yaa way layta laytani lam attaxis fulaanan xalila ak a neexoon tey jii ma tënku woon ca lee yonent bi di wax ak neexoon mu tënku lee ci alxuraan la alxuraan doon wax démb ak bërki démb ma nga àllaaxira waaye weesu na xele ma ngi ne yaru ci àdduna waaye it danga fa gis ku mat baaraamam sànni ne cey waj lu ma doon xaritoog diw lu ma doon coalisé ak moom yaa waylataa laytani lam attaxis fulanan xalila ci wàññi su ma ko xamee woon nii de du ma ko def du ma bokk moom coalition mukk du ma ko def xarit du ma bokk moom lenn lu ñuy boole loo xam ne ku ko tudd ma ci kooku xel ma ngi àdduna waaye weesu na da nga fa gis mbooloo moo xam ne it dañ leen di gurgur jiital leen ñu àndandoo ñëw gis ne dëgg rek mooy dëgg. lu ñuy wax yaa laytana ataana allaha wa ataana rasula ay waji bu ñu ko xamee woon nii ak neexoon ñu xamee ko nii ñu ko xamee tey ba ñun ñi suñ mbooloo mii nga xam ne xamuñu fu ñu jëm dañuy réeral nit ñi rek waaye xam nañ fu ñu jëm ak neexoon tey ñu topp yàlla ak yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam waaye nit it xelam dana yar ci àdduna te fekk ma nga àllaaxira bu ñu ko joxee ab téeréem mu nangu ko ci gannaawam wa amma man fa amma man utiya kitaabahu bi yaminihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiran wa yanqalibu ila ahlihi masrura bu ñuy rappel haut-parleur yi nekk ci kanamam mu dox jëm ci kay joxe jële ndeyjooram day bëgg ak njabootam bëgg ay soppeem yépp bëgg yéene ko ko waaye nag koo xam ne bi ñuy wax ba tudd autoram micro yi ci ginnaaw la ko haut-parleur yi ci ginnaaw la ko fare fu mu jëm mu ne ci ginnaawam mooy waraa dahrihi wa amma man uti kitaabahu waraa dahrihi fa sawfa yad'u suburan wa yasla wa yasla sa'ira kooka la muy la yóbbu am xelam adduna te fekk ma nga àllaaxira mooy yaa laytani lam uta kitaabiya yaa laytani lam uta kitaabiya su su ko xamee woon nii de dana fexe ba bokk ci kuréel bee nga xam ne bi ñu leen di woo ci haut-parleur yi haut-parleur bi seen kanam la nekk dañoo dox jëli ko waaye dox jëm gannaaw jëli ko moom suñ ko xa suñ ñoom suñ ko xamee woon nii dëgg-dëgg danañ xool li ñu bindal lu muy doon ay fekk weesu na kooku xel ma nga ne yar ci àdduna te fekk ma nga àllaaxira waaye nag da nga gis gaa yoo xam ne dañ leen a solol ay yére yu rafet yor parasole bu rafet sol dàll yu rafet waaj ba jekk daal di xeeñ lu neex dankal dankal li wuti al aljanna benn waay boo xam ne fii mus sa nangu dégg yàlla nee na yonent bi nag alxuraan nee na benn yoon ci dundam coono bu alxuraan daj moo ko ko teg wala bokk na ca wala cautionné na ko bu waa daara dal lu waa dal waa daara ca la bokk mu ne waaw kee nu mu def ba am waajtaay wee ak man ñi ma raflee ñu ne ko kee de daa da doon feret lu mu am rek yónnee fii bi mu ñëwee fekk mi ab jal ci la waaye ne te dese na lu bari kooku am xelam na yar ci àdduna te fekk mu nga àllaaxira yaa laytanii qaddamtu li xayaati ak neexoon lu ma am dawal ko fi lu mu am dawal ko fi moom waaye beesu na amatul njariñ waaye law tusawwa bihimul ard nit dana xool ab jóor mu dale fii ba fële mu laaj ñu ne ko yaa moom li lépp de mu ànd ak xet gu metti mel ni lu xaw a farox mel ni lu xaw a nëb nga xam ne fu mu jëm day gën a xeeñ ci moom lu ko naqari fu mu xool day gis mu gën koo metti ci ab gis te ñu ne ko yaa ko moom ñëpp di ko romb naan yëfi diw yi di ko di ko wax muy dégg su boobaa lu muy wax xelam danaan yar adduna te fekk ma nga àlaxira yaa laytanii kuntu turaaba ak neexoon tey mu bokk ak suuf ab atte yàlla jëri ko rek mu dem moo tax fii nit di toll xelam na yar àllaaxira tooñut kenn kenn tooñu ko kooku ab jullit la dëgg-dëgg ndax xam na ne àdduna kërug jaarukaay la jàll dafay escale rek léeg-léeg nit dugg fafal naaw ab avion mu escale cib dëkk ne bu kenn wàcc dañuy daal di jógaat waaye léeg-léeg it ñu teg ko coono bu méttee méttee métti mu muñ ko ndax xamut ku koy war a àtte ku koy saafara ku ko ciy dimbale xelam na yar na àllaaxira kooku it ma ngay dund xam na ne foofu moom loolu lépp di leere foofu la lépp di leere bokk yi moo tax di xalaat tërayub morgue am na ñoo xam ne dañ ne duñ taal climat ventilateur sax waxuma la climatiseur ndax sedd bi baaxut ci ñoom buñ faatoo ba dañ leen a denc di leen suul fu ñu leen di yóbbu ca morgue ba mu sedd guy amuñ ci pexe sëñ ñoo bañ buñ koy sang néew na fu am fu ñuy sange am néew ay néew mu am sof eau ndox mu tàng mu sedd amut men ndox mi lañ koy sotti te mus sa ñemee sangoo ndox mu sedd këram bu seddee ba sedd day taal day def benn contact rek mu tàng jër mel ni koy jaaru ñu dugal ko ci morgue bi tëj gem ba suba wala ba ngoon sotti ko ndox mu sedd wëlbati ko ku ne nag mën na koo fekke ku ne mën naa bokk ci ne koy sang ñu daal di koy génne ca morgue ba ñu kenn xamul ñum doon ñoo xam ne mosuñ ko mën a gis mën a gis ci dundam ŋàbb ko ci ay dénk ñëw teg ci kanam ñëpp mun a ñaw nga xam ne weñ ja koy dal sax du ko mën a dàq du xàmmee naaj ak tàngaay naaj nag tàng na du ko xàmmee suñ noppee nag oto yu baax yam daan dugg ñu di ko escorter loolu moom ku ne gis na ko ba tàyyi danañ ko escorté de waaye duñ ko dugal ci oto yam daan dugg ñeneen na ciy dugg ñu dugal ko ci boo xam ne bii kenn bëgg caa dugg daanaka ñu ñàkk pexe dong nga ciy dugg ndax ña koy gunge ci yeneen oto yu baax la ñuy dugg yam daan dugg la ñuy dugg ñoom. bokk yi nag tëray boobu ku ko dul xalaat mbooloo mu la neex mën nga caa bokk ONG bu la neex mën nga caa bokk te xam ne noonu mu mel tumuranke googu mu nekke dugal ko ci oto boo xam ne bii fu ak weñ lañ koy tëral ci aw dénk ba fa mi ba ba muy àgg fa mu jëm ku ko dul xaar loo neex mën nga ko def lu la neex mën ngaa signé ku la neex nga atte ko ku la neex nga setal ko ku la neex nga joxoñ ko ñu jëli ko ku la neex nga joxoñ ñu génne ko waaye nag bokk yi ñu xam ne waxoon nañ ko di ko waxaat képp koo xam ne mi ngi dund ci àdduna bokk ak waa àdduna àdduna bayiwut xel lu dul la muy am kese ba tax waxeetut aw làmmiñam waaye làmmiñu keneen rek lay waxe te bu koo ko téye loxoom mu noppi na xam ne bis dana ñëw ci kanam tuuti te bis bu set mu gën koo jege mbokk yi ñaata nit ñooy wéyee jàngoro joo xam ne kenn mënu koo saafara spécialiste bu ne dem nañ ca moom mu tëtti ci ñu ngi wéy ak moom bu yàggoon a yàgg am na ku ñu daan waxtaane koo xam ne kër gëm dëkk ku ñu fa yóbbu ci buntu kër bi ngay summee say dàll ndax tappi bu nooy la def mu tàmbalee ci buntu kër gi ba ba muy àgg ci biir kër ga nga xam ne boo yoroo yorob daara moom da ngay defe ne fii kenn waru fee sol ay dàll te moom loolu moo tax ñu def moo tax mu def ko tappi bu rafet boo xam ne jàkk rek la jekk nooy nepp mu def ko ci buntu kër bi muy dem ba ca biir war a ndaay wa wu ko gën fuuf nekk fa ba ci biir sàll ba am na ñoo xam ne lekk yu teey yi nekk adduna lañ leen jëkk xañ te fi yàlla de waxe naan allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimina udxulu ljannata antum wa azwajukum tuxbarun yutaafu alayhim bisixaafin min dahabin wa akwaabin wa fiha ba aya ba àgg ma tashtahi l anfus wa taladu l ayun wa antum fiha xaalidun xuluud dugg foo xam ne duutoo génn àjjana moo ci gën waaye am na ñooñ ñooñ yàlla di wax génn nañ ci seen bopp bu yàgg ñu faatu ñu di leen defal lii ak laa jëriñootu leen dara ndax ñoo siñ a génn yàlla dafa wax ne ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla lépp luñ ne yàllaa ko wax walla moo ko def ñu nangu ko niñ nange niñ nangoo ba gëm yàlla nee na ñooñu ñooy ay jullit dëgg su ëllëgee yàlla du leen laaj dara danaan leen rek dugg leen àjjana yéen ak seenu njaboot bu leen xalaat dara su ngeen fa duggee lii gaa yi doon leen xëllantoo fii ci kaw suuf mu ne gañ gaññaaral moo leen di wër wet gu nekk moo xam muy luy neex ci gis ni bët di ca bëgg wala lu aw làmmiñ di sax muy saf ci moom di ko dundal ci aw yaramam te kat nee na woon du leen fi jóge nee na ñi nga xam ne si ñeneen ba noppi na ñoom bokkuñu sa ndax alxuraan du leen àtte faale wuñ ko yàlla yërëmut nit ñi ba di leen teg yan yi ñoo gën a xam yàlla yërëmande si ñeneen lu leen si génne ba noppi. ñu ngi ciy tàmbalee gis dara léegi ndax lekk yu neex yi ci àdduna yëpp dañ leen koy tere bokk yi kuñ dem ba ne ko bul lekkati lu saf suukar bul lekk lu saf xorom bul lekk lu am diw bul lekk yàpp moo xam yàpp bu mën a doon. bu lekk jën dee lekk ay xob ay xob te bu ci sori kooku dugg na ci mbugal ba noppi kon bokk teg teggi tànk jot na nit na nekk fii ci àdduna di xaal àllaaxira rek ndax tumuranke ak néew fi doole te ay nit ñoo ko ko teg moo tax ne nekk àllaaxira di xalaat àdduna te dutu mën a dellusi waat te la ko koy teg fii la koy fàggoo kullu nafsin bi ma kasabat rahinatun kenn ku nekk bu ëllëgee bu mu yedd kenn lu mu fa mën rajeel moo ko defoon fii kon boog moo xam muy kilifa ak diine boo waree jóg na jóg bala moo layoo ëllëg su dee kilifa ak adduna lu mu foor foor lu mu am am doole lu mu am am kàttan na xam ne xulóot moom nekk foo xam dootu fa jógee ak béel yàlla rekk la te yàlla du laaj ëllëg kii fonction bu mu yoroon day jëkk xool ci moom pas-pasu gëm yàlla bis bu wax bis bu mu waxee nag ci làmmiñam ne yàlla atte wu fi te mooy alxuraan du fi atte si ñeneen a génn na ci su ma bu yàlla xoolee cooco la koy àtte yonent bi ne yàlla du xool seeni fonction du xool seeni seen seenu juddu du xool seen alal waaye seeni xool lay xool ak seeni jëf su boobaa nag bu ñu xoolee seeni jëf dara du leen ca neex baat bu sew day tas ak njaboot nit ki muy wax ak soxna su mu amel fukki doom ak ñaar ñu dund ay ati ati at benn baat dong tas na njaboot ga benn baat kese ginnaaw noonu la réy nag bay tasu njaboot goo xam ne ay nit lañ sakkantuma diggante mag yàlla te mbokk yi bari na ku ko wax koo xam ne da ko façon bu yàgg a yàgg kon bokk dañ teg tànk yi te xam ne su fekkee dañ laa fal te nit ñi fal la ko yàllaa ko def waaye ci nit ñi la ko jaarale nga xam ne jamono bañ lay fal ak li nga toog at yi nga dund dutoo ko dundaat at yi nga amagun ci àdduna dutoo ko dundaat moom di man la nga li ngay man dangaa dox jëm ci tële moo tax boo dee kilifa gi diine dangaa war a daal di jóg tem bu wax jotee nga wax boo dee kilifa goo xam ne it àdduna la waaye nit ci nit ñi la jaare it nga xam ne li nga doon li nga do li nga am ci at dutoo ko amaat te amul kenn ku dul retraité képp koo xam ne ma ngay liggéey gëm na ne mi ngi ci retraité dana retraité ji benn mu fekk ku muy dund wala laata mu ci àgg faatu waaye wóor na ko moom moo tax muy dajale as tuut naan su àggee ci retraité di ko dundee waaye bari nañuy retraité atte bi yomb naa xam fii lool bari nañu retraité te leen lañ leen di jox mënu leen a yor sax fukki fan ñu war a xaaraat ñaar fukki fan ñu door leen koo joxaat ci fa ñuy fayee weer wu dee waaye ñi nga xam ne dañuy xaar dañuy tegale ay wax doon leen dafay ku ne xam ne ne mënu leen a dundal te moo ne seen obligé woon de gisees na ba tey ku réccu ne su ma ko xamee woon nii mooy réccu yi ñuy wax àllaaxira rek kooku demagul a demagul àllaaxira de mi ngi àdduna su ko xamee woon nii dana dajale lii dana dajale laa am na ñu ko dajale ba mu na gàññ mu xëy jeex tàkk te fekk faatooguñ ñoo ngi nag seenum xel muy dem àllaaxira amul njariñ dañoo fayee seen àdduna ba ñu waree liggéey liggéeyuñu woon am na kilifa gu ñëw bu hôpital bu mag ci Ndakaaru ab lijjanti àgg ci ñu xool kii kiñ ne moo ëpp xam-xamu di dal kii mu ñëw xool xool xool laaj laaj bind bind bind daal di solaat mbubbam sumi mbubbam mu weex lemaat def ci saagam ne maa ngi dem ñu ne ko dañ la see yaakaaroon di moo tax ñu woo la mu ne kii dara jotu ko loolu waxee lu mu doon mu ne ba mu waree lekk daa lekkutoon rek kon boog bi jëf jotee nit ki man sañ na fexe ba li muy def lépp di lu baax di lu maandu muy fab atteb suñu borom teg ci kanamam fab atteb suñu borom teg ci kanamam digganteem ak moroomi jaamam ñi xam ne rëccu amu fa njariñ suñ mag bind na ne ñi fi bàyyi ko ñëpp liñ gën a bëgg ci àdduna ca fañ nekk loolu nag bokk yi génnewu ci kenn kenn mooy ñu may ko mu dellu si waat àdduna kese doonte juróomi minute la ndax lan mën fay def tuuti dolli ko ca lam fa am ndax lam fa am day wàññi ko te dolli ko waat te dutu fu jóge mukk kon boog nañ seetalaat nañ seetantalaat jéego yi fi ñu koy teg ñi nga xam ne ñoom amuñu woon pexe dañuy bàyyi yàlla seen bopp rek moom nañu wéy ca foofa foofa rek la yëf ya nekk yàlla rek ka fi des yàlla rek ka fi des ñim an ñi àndoon ak moom it ci ay ndigalam ñoom dong ñoo fiy des bokk yi ñaata attekat ñoo fi jaar ba réew mi di réew mi ba léegi fàtte nañ leen bu yàgg waaye ñañ doon àtte seeni tur ñii gën di jolli di gën di siiw seeni liggéey di gën di jariñ nit ñi mën nañ see joxe misaal rek ña daje woon ca ndar wax a wax ba ne dañuy yóbbu sëñ Tuubaa sànki ko suñu ko sànkee bu yàggee ñii mu nekkaloon danañ fàtte lim yoroon yëf yi tas kenn xamatu ci jeexiti kenn kuñ ci tudd doo ko xam ëpp na téeméeri at bañ dee ñoom yàgg na waaye bi sëriñ bi bàyyi ko lem ma téeméeri at waaye bis bu sët ñaata la ko nit ñiy tudd ñaata la nit ñi di paas di ko wutali fa mu dëkk waaye ñooñu dañoo dee ndax bañ leen suulee liñ leen fàtte ndax ña leen doon liggéeyloo yàlla amu ci woon wàll dañ koy doon seet la leen neex rek ñu di leen ca àtteel ku ñu bëgg a teral teral ko ku ñu bëgg a bundu xatal bundu xatal ko ba seenub liggéey jeex benn ñu faatu ci biir liggéey bi wala ñu dem a dem ba seenub liggéey jeex ñu wàcc leen seet ñeneen ñu koy def ñu fàtte leen yàlla na yàlla defal dëgg ak topp te musuñ seytaan nekk pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin